ñu ngi leen di ziyaare ziyaare bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax ziyaare bu amul app waaw waaw ziyaare nag bu amul àpp maanaam xam nga fa muy tàmbalee waaye xamo fa muy yeeg jeexee loolu mooy ziyaare bu amul àpp maanaam xam nga fu muy tàmbalee waaye xamuloo fu muy jeexe ziyaare ziyaare ziyaare waat dellu ziyaar ziyaare waat wala na xol yi yëpp féex yi sedd ngeen partagé tasko ñu pare campagne gi voilà na ngeen tas mbir mi mu tas tasar voilà na tas waaw maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax a baax a na ziyaare bi yegg ci ñëp maa ngi leen di ziyaare dama mën a jëlaate nag temps yi dama am musicien bu bees waaw waaw jëlaate rek laay def ay suñu xol yow rek Pape Tassé la

da ngeen di partager nag parce que ñu campagne partager leen ah gars yi nañ ko tegaat benn yoon misik bii nag dafa ma def. challenge laa bëgg a defal ma yéen ñëpp defal leen ma ay musique bu Sonko yónnee challenge ku gagné ku gagné ñaata ngay nañ ko def un million wala cinq cent mille gagnant bi la am. yéen ñëpp dama bëgg defal ma challenge yu Sonko nag. musique ku Sonko bu kenn mer nag. musique ku buñ ko tegee gars yi décidé ci campagne bi maanaam Sonko mooy jomaay da ngeen di def musique bu neex yónnee ma ci whatsapp bi gars yi ñooy décidé du man maanaam dañ koy dugal ci Facebook bi ku ëppale ay like xam nga Facebook bi moom du fen ku ëppale ay like déglu leen ma bu baax xam nga mën naa dugal ndaw si mu am 1000 like ma dugal keneen mu am 2000 like ma dugal keneen mu am 3000 3000 like du dëgg ma dugal keneen mu am 4000 like léegi nag ku ëppale like adduna bi yëpp seede ko dañuy xool ci Facebook bi ne yow mi yaa ëppale like donc yow yaay gagné voilà premier prix bi nag euh, dama doon xalaat ma def ko un million wala ma def ko cinq cent mille ah ñu def ko cinq cent mille du moo gën parce que campagne jot na te poos yi xaw naa woyof tuuti léegi premier prix cinq cent mille la ku gagné cinq cent mille ngay am dégg musique Sonko Jomaay da ngeen di def challenge bi fec léegi nag buñ ko jëlee dugal campagne la léegi ku gañe ku ëppale like Facebook bi mooy décider ku ëppale ay like rek yow yaa gañe ku am 1000 like kële am 1100 like borom 1100 like bi mooy gañe ku am 2000 like borom 2000 like bi mooy gañe ku am 3000 like borom 3000 like bi mooy gañe ku ëppale ay ay like rek yaay gañe Voilà. Donc, pour quelqu'un mère, si quelqu'un est venu à gagner, Facebook bi moy décidé. Je vais prendre la musique, bi, dougal ko ci Facebook. bi. Légui nak Facebook bi moy décidé. Légui nak munuma dougal sans musique. Légui ci WhatsApp bi buma démé, je vais choisir les 15 premiers, 15. 15 lay lay 15 personnes rek lay Donc bu gaawé 15 vidéos je ñëk jot mom lay dougal léegi ku ci ëppale like kooku moom mooy gagné voilà ndax musique bii dafa neexa ah, kii li mu woy neex naa ah. challenge lañ koy def nag challenge léegi challenge bi mooy ñu dugal musique bi ku ëppale ay like ma jël sa cinq cent mille francs ma yónnee la ko comme niñ ko digaaleel ma poste reçu bi àdduna yëpp gis ko parce que campagne bi nag day bari ay challenge day bari ay fame voilà vidéo bi nag bu mu gudd na doon voilà voilà euh, une minute sax baax na bu mu doon sax deux minutes une minute rek baax na vidéo une minute sonko sonko ak jomaay rek ngay way dangay ngay way sonko mooy jomaay jomaay mooy sonko loolu lañu ñu nga way boo ko woyee incha allahu rabbi ñu daal di jël musique yi dugal ko ku ëppale ay like ci vingt quatre heures duma pour ngeen xam pour bu len yaakar ne day yag damay def 24 heures maximum buma dugale yep ci ëllëg sa ñu ñew ñu xolando yep aduna bi di gis ku ëppale ay like yow yaa gagné comprendre nga voilà allez c'est parti léegi nak tambalina challenge ba tambalina ma tagat musique bi rek pour ngeen dégg ko voilà xale bu jigen bi sax tamit bu ko nexé momit man na defat benen musique bu bokkul ak bi voilà nañu dem bismillah ñu xool lu yow rek la sonko kaay nga jiite ñu suñu xool lu yow rek la dëgg dëgg bëgg nañ la te mu soo ñu war benn yoon suñu lettre bind nañ ko ba postel la ko nga jot ko lim nga ko tontu ñu ne nga jomaay yi mu di yow góoru aana bëgg nañ la góoru xadi sopp nañ la détenu yi sargal ñu bëgg la ñu ci kaso bi bëgg nañ la Sénégal gisul dara Sonko rek suñu xool kenn moo koy dundal Sonko Afrika kenn moo koy neexal wuy dañu la a wax ni génnal gaaw na mën nañ la waaw photo bi nag na yiiw damay wax rek parce que xale yu jigéen yi xam nga yéen da ngeen bari ay féem voilà am na xale yu jigéen yoo xam ne bu ñu defee yenn affaires yi xale yu góor yi ñëw fii du ñu seet vidéo bi sax ñoom ci like yi rek la ñuy nekk voilà déedéet na ku nekk sol yére voilà na nga na xam nga mën nga yëngal tuuti rek waaye na yiiw daal xam nga bul ñu ñu xuuxal daal boo ñu xuuxalee xale yu góor yi ay tappalekat lañu ñoom bu boobaa photo bi la ñuy la ñuy dañuy xool ne borom taaru na rek ñu jox ko ay ay ay like like duñu duñu topp ci way bi donc nañu concentré wu ci way bi donc parce que way bi xale yu góor yi aussi bokk nañ ci daanaka cinq cent mille la mais sama yaram bu tàngee Maintenant na ko def 1 million nak waye cinq cent la sama xarit ba xam ne cotiser comme ça ñu def 1 million comprendre donc encore une fois mune il faut donner à celle qui a chassé le ça, ce son dedet dedet. du damay rek en tout cas def vidéo challenge la kenn ku na def na vidéo Sonko coup gagné, tu as 500 000 francs. Ça peut quand même être 1 million. Ça m'a dit, Mboutangé, maintenant qu'on def 1 million. Ouais, 500 000 bimom, c'est garanti. Voilà. Campagne tambalina, donc la nuit campagne. Tes campagnes happiness, la nuit campagne. Voilà. Campagne happiness. <laughs> Bouba, bouba, bastangom, n'est-ce pas, grand-bail, lui, d'avoir bombardé, d'être, seul, là, hier, avec. gars yi sol leen yére bi mu rafet ngeen def challenge bëgguma cee bakkaar parce que tam yenn xale yu góor yi xool ko ñu ximmatiku xam nga nekk ci biir julli ji di leen xalaat ma ci bakkaar déedéet nañu challenge rek waaye campagne voilà Sonko mooy jomaay te ci campagne bi ay feem yu bari la ñuy génnee maanaam képp ku góorgóorlu ci campagne bi ñu gis la ngeen di dem di joxe spécimen yi spécimen ku ci ëppale dañuy jël yëpp vidéo yi di ko dugal vraiment comme ni ma leen waxee ku ci ëppale ay like dinga am ay prix ku ñu gis muy def le meilleur job le meilleur job billahi di nga am prix voilà il faut fair la meilleur meilleur job voilà ñëpp a war a ci terrain bi déglu leen ñu nee nañu nga woor nga dem campagne nga ndogu nga célébrer lolou lañu wax parce que bu len faté man nagu manu mënuñoo xex yegg ba fi di nagu dedet on sait qu'on peut gagner waaw gor ñi bok nañu xalé gor yi tam bok ngeen waaw waaw xalé gor yi bok nañu bien sûr xalé gor bu mën way kay man nga way te tam nga gagner hein ah. parce que attention xalé gor yi man ngeen gagner voilà xalé gor yi man ngeen gagner dama né na ngeen concentré parce que ci élection la ñu jëm ci élection yi bu kenn naagu déglu len ma rek bu kenn naagu bu kenn naagu on n'est pas dans un état normal bu len naagu nañu dem ay élection dem len feug ci buntu yépp ngeen waxtaan ak ñépp ngeen encouragé ñep ñu genn jëli leen seeni carte d'identité ñiko jëli wul ba légui dem leen ci préfecture yi au premier tour lolu du débat midi ñu nokk leen wayé man bi c'est pas mon souci pourcentage gagné bi moy souci parce que ba on est entre 70 et 75%. Mais on veut de aller au-delà de ça. Au-delà de sa La ñu bëgg a dem au-delà de sa voilà dañu bëgg a jéggi foofu dem euh, gars yi ma bëgg ma ñëw rek ci benn euh, précision bu ndaw balaa may gën a sori ci live bi ma ñëw ci benn précision bu ndaw gis naa tey benn euh, policier ben policier euh, nervi nervi là. c'est un nervi et je vous le garantis xam ngeen ma man du ma man ma te sama xol bi rafetul ni bu Guy Marius Guy xol bu rafet la il est très gentil il est très sérieux il est très direct voilà Guy Marissagna. il est très gentil très sérieux très direct dama gis tay mu photo ci paasam ak wadi parce que wadi dama ko xattal fani manam dama ko sonal manam dama ko sonal ndeke mom limako sonal dem na wuti pexé mu côtoyer gi diko ko côtoyer photo wu waxtan ak mom pour di Marius Sagna sauver ko voilà li sauvetage tout tudd li sauvetage le gi il faut pas sauver les nervis parce que wadi nervi la le policier là c'est un nervi voilà. C'est un nervi, lieutenant Bay Di Diop. à Saint-Louis là... Momak Amadou Sall ñoo doon liggéey Amadou Sall diko jox ay arme mu koy jox ay nervi pour mu jël ko di tiire ci doomu Adamay. donc Guy tu es très gentil tu es une personne très sérieuse Mohamed Sanya... Mohamed Sanya... il est extraordinaire son cœur est de diamant mais le gars là c'est un nervi s'il te plaît voilà c'est un nervi il faut faire attention vous êtes des personnes Vous ont exemple Sénégal il faut faire attention les personnes avec qui vous vous affichez qui essayent de vous utiliser pour laver leur honneur voilà voilà Dengen, Wadi, il essaie de laver son honneur c'est un nervi voilà nervi là. Mbaye Sadi Diop jëlaat na poste Guy bi ma baare ko c'est pas un manque de respect pour Guy parce que Guy c'est un ami c'est un frère que je respecte beaucoup mais le gars c'est un nervi donc waa ji ak fo meuna dem dinañ la la nervi fo len meuna lakatu a len danañ bu la neexee nga foto ak yalla sax waye bo setul danañ la génnee won ko aduna bi vous êtes des bandits yow xam nga ne bo do dem di photo wu ak gi ginnaw biñ la vilipande ci aduna bi on t'a vilipandé voilà on t'a vilipandé le monde entier te connaît te man buma la waxé que je suis influent crois-moi amul ken kou la mën a bu la Ousmane Sonko jëloon lakkale ci wetam sax dana ko wax dëgg nga dégg lolu rek bu doon Ousmane Sonko mo la jël xam nga man lutax man man ma indépendant man moy amul ben nit buma Ebrale, ébranlé man Sonko rek la gëm mais bu son côté tey moo jël ay nervi yi lakk ci wetam sax dana génn ma donc duñ ok on ne l'acceptera pas on voit Farbangom faire la même chose essayer de salir Dambot, et passer par des journalistes déguisés essayer de salir Dambot, essayer de salir Clédor ces personnes-là ne seront pas salies ma wax len ko ils n'ont même pas été au palais mais Sénégal règle le dem palais crime parce que derrière le palais il y a un criminel nommé Macky Sall Sénégal règle le dem palais de la République devenir crime sinon le palais de la République c'est l'emblème de la République c'est le signe de freedom de la République on doit tous pouvoir aller au palais sans problème mais Sam palais de la République Gourek, tu es un criminels, soi-disant criminels. donc Dame Mbodj Dame Mbodj nit ku set la Clédor Sène nit ku set la ñu te sella te gëm seen réew far Ngom toi on te connaît déjà amul dara loo mën a def amul dara loo mën def pour salir ñooñu billahi wallahi tallahi lazim billahi is nothing you can do to dirty those people ndax ñun xam nañu leen vous avez essayé toutes les choses au monde Essayez de salté adduna pour tilimal doomu Gorni. on vous connaît vous l'avez essayé avec moi vous l'avez essayé avec d'autres personnes Vous li ngeen di moi, mbir que et on est concentré Clédor sen Setina on est concentré mais Guy Marius c'est na ba mu mais fu mu ça n'a rien sali. Parce que Guy est propre et on le connaît. Ces gens-là sont propres et on les connaît. donc Guy encore si ma lieutenant Sadi Diop lieutenant Sadi Diop lañ ko pour le moment pour dafa di photo ak patriote bu ci dem wuti nit bu mu pour setal deram te bul fàtte lieutenant yónnee nañu sey preuve Juan Branco Juan Branco yónnee nañ ko sey preuve ba pare yow bu la neexee bul nelaw bu la neexee bul tëddati nelaw voilà bu leen yaakaar ne Sénégal setal nañ leen yaakaar ngeen ne set set ngeen ci àdduna voilà setu leen Vous n'êtes pas propre. Quand tu n'es pas propre, tu ne peux pas être propre. Gaï, élection campagne mi le 10 ci xibar yi campagne bi le 10 lay tambali. Inshallah, mu jeex le 22 bu ma le 22 le 10 mu jeex le 22 ma xol le information yi encore une fois dama bëgg jël information comme ça du voilà campagne bi Tambali, le 10 mars à 0 heure et se termine le 22 mars à 0 heure voilà pour le 10 mars à 0 heure Dieh, le 22 mars à 0 heure pour encore une fois, le 10 mars à 0 heure, le 22 mars à 0 heure. Tandantenbi, d'antenne bi bind première tranche deuxième tranche troisième tranche bind Lep ko Siena euh, bind nañ communiqué te communiqué bimingini. dinañ ko poster pour ngeen am ko donc campagne bi mi ngi tambali le 10 mars 2000 à à 0h ba paré jeex le 22 mars à 0h mais nak comme niñ leen ko waxé xam leen né campagne ak vote ci jaamu yalla la campagne ak vote ci jaamu yalla la campagne ak vote ci jaamu yalla la campagne ak vote ci jaamu yalla la donc nañu fexe lépp lu ñu man lépp lu ñu man ñun ñëpp ñu génn incha allahu rabbi pour fexe ñu campagne campagne bu am solo bu am doole nañ ko campagne incha allah campagne bu am solo te am doole parce que fi mu toll nii on est en face des délinquants On est en face des délinquants. On s'est battu jusqu'ici. dañu xeex ba yegg fi ñu yegg dañu xeex ba yegg si donc amul dara lo xam war nañ ko def pour def erreur dañu xex ba yexi fi. dañu xex ba yexi fi. fii way, way, way, way, waay waay waa ji mi ngi insulté boppam ndey ak baay nee wadi ji sax ba <laughs> du la lire sa commentaire bi <coughs> la lire sa commentaire bi de dama la koy bàyyil foofu parce que vous vous ne respectez pas les gens dama beug ngeen xam élection bi fatte fàttaliku leen len may wax toujours c'est le système contre le système rek moy élection bi ko c'est le système contre le système élection bi ko c'est le système contre le système voilà Mon on a des activités sur le terrain à réussir mais bien sûr Sidi Fall tu peux m'appeler après sur mon WhatsApp si tu le veux bien, si tu as mon numéro. Voilà, système contre anti-système là. Lolo rek ngeen di changement contre l'IFI fi L'IFI yag nek. Boudé. mom bu ngeen bëgg xam ngeen ñi ngeen di changer l'IFI indi fi lu sikim bi di borom sikim bi di Mingi, le borom sikim la serer na fi yo mexeme Pas jangi serer nak tan yi parce que beug na wax ak sama mbokki serer yi voilà mo nek ni waji ngeen di wate system contre anti system bu len kenn nelawloo bu len kenn nelawloo bu len kenn nelawloo ah. kenn nak bu leen bu leen kenn nelawloo nañu concentré wu c'est le moment de la campagne électorale bu naagu bàyyi leen naagu toog seen kër naan ah lii de élection yi jeex na balaa mi di ñu lem ko déedéet dama bëgg ngeen génn ngeen voté donte bu ñu amee quatre vingt di pour cent sax nañu génn vote bu nekk day compter man xeexuma juróom-ñaar jëm juróom-ñetti at pour ñaw toog naan wala gagné nañu mbir mi jeex na déedéet na man jël leen exemple ci man même bu ma dooree makki Sall ba mu tëdd dama koy continuer duma man noonu lay xeexee dama koy duma ba mu faatu voilà bu leen sàggan bu leen sàggan bulen sagam bulen sagam gis nga gay ñun ñoo mëna may Macky Sall élection yi ndax kat buñ fi toogee di nagu ñu mëna am 90% non am nañu 70% jarul xëccio déedéet Sénégal tollu na fo xam nit ñi sonn nañu coono bo xam bëgg nañu mu jeex à tout prix bëgg nañu suñu coono jeex te coono nag li koy jeexal ci ñun la ci ñun la ñun ñoo mën a jeexal coono bi dañuy génn dem jëli suñu ay carte te bu ñu jëlee suñu ay carte dañuy génn dem campagne yi heureusement dañuy woor léegi ci biir koor googu macha allah jaamoo leen ko yàlla di génn yéen ñi nekk ci jàkk yi ngeen ci waxtaan ak suñu naataango yi yéen ñi nekkul ci jàkk yi ngeen di dox ndànk di dem kër ak kër gox ak gox yen ñi am auto ngeen dugg ci biir all bi di wax ak villageois yi gox dekk ak dëkk fukki fan lu bari la bari na wul nak fukki fan ak ñaar la campagne bari na wul waye Sonko ak jomay danañu campagne waye duñu mëna dem ci dekk yépp gaay yi bu len fàtte ne y a départements au Sénégal 14 régions loolu yep mënuloo ko def ci fukki fan xamna du ñak dina mëna dem ci dëkk yu mag magani xam ngeen Sonko waye xamna aussi du ñak bu démé bay pare ba campagne bi jeex dina def touru Sénégal yep. pour remercier ñep ndax ñun diaspora bi sax ñoko gëna gën soxla ndax ñun diaspora bi mom bis bu fi Sonko ñëwé dañ koy xaar dañ koy xaar fukk ak ñaar donc dama né nañu campagne na ñëpp dem campagne ku am vélo jëlal sa vélo nga dem campagne ku am scooter jëlal sa scooter nga dem campagne ku am jakarta jëlal sa jakarta nga dem campagne ku am avion jëlal sa avion nga dem campagne ku am hélicoptère jëlal sa hélicoptère nga dem campagne waa kër gële coow rek moo leen dese waaye xam ngeen ne ku daan ne force reste à la loi ba tey mu naan force reste au peuple xam nga ne kooku xam na ne peuple bi moo yor doole ji te bu ñu xojee Macky sàll ba mu dellu ginnaaw xam ngeen ne candidat Macky Sall mënta gagné ay élection logiquement xam nañu loolu loolu bàyyi leen ko xel fichier électoral bi comme Mbaye Babacar mi koy laajte loolu dañ koy bàyyil experts yi ñoom ñu càmbar ko Mbaye Babacar xam nga tey boo jëlee benn patriote bu nekk ci réseaux sociaux yi nga bëgg mu càmbaral la fichier électoral da nga nekk ci réer Macky Sall pas sàcc élection yi bu sobe yalla bu sobe yalla mënul nek c'est pas possible ndax duñ ko ko may on est majoritaire on est supérieur à tout ce que Macky Sall a imaginé dans sa vie on est tellement majoritaire que Macky Sall amul ben xalaat ben pexe ben man-man bu mu élection yi c'est pas possible voilà dama bëgg ngeen bàyyi loolu xel gars yi dañ leen di nelawloo waaw Macky day sàcc waaw découragé dañ leen di jéem a découragé sëñ bi naka la bombardier di xeexee ak euh, euh, Ouzin Keita mu jàpp ko duma ko ba Ouzin Keita kaka nga ne bombardier moo nga ne Ouzin Keita moo gagné combat bi loolu c'est pas possible loolu c'est pas possible voilà sama numéro bi moo nekk noonu pour ñi ko bëgg am encore une fois pour ngeen yónnee ma déjà vidéo challenge bi ngeen yónnee ma ko mais ngeen yónnee ma aussi bépp document boo leen am boo xam ne war nañ koo mën a partager ci campagne bi challenge laa wax de bu fi kenn woote nag di ma yónnee a <laughs> astafurla bu fi kenn wala grand ordonnance grand bopp buy metti déedéet dañuy campagne fi mu ne nii ñu ngi ci campagne jéggal ma rek ci campagne la ñu nekk damay campagne ay challenge lay def ku gën a liggéey ku sa vidéo ëpp solo ku sa vidéo ëpp visibilité yooyu laay dox ci yooyu laay dox nekkuma ci ay débat détail fan yi nag ku ma bëgg a attaqué ak man sa temps jot nag profitoo ci ndax temps yi awma jot temps yi les mousques les petits moustiques là je n'ai pas votre pour tontu leen temps yi donc képp ku bëgg a xuloog man rek bii mooy sa waxtu profitoo ci

ñom ñu bari si ñom duñu wor dedet voilà yeen concentré wu len na ngeen focus guy, na ngeen focus limoisen moy sen concentration ku meuna défar sa t-shirtu bop nga défar ko ku meuna jënd sa brassardu bop nga jënd ko ku meuna taxaw sa taxawayu bop nga taxaw ko ça c'est un combat citoyen c'est le don de soi pour la patrie lepp luma ci def man Ousmane Tunkara defuma ko pour ñu fal ma ab ministre defuma pour ñu fal ma député defuma pour ñu fal ma maire defuma pour ñu fal ma dara d'ailleurs je vous ai dit je vais mener le combat le plus désengagé de l'histoire du Sénégal dina xex ba may Sénégal ndam ma delu ginnaaw dem tok ci sama continuer pousse gaay pour ñu liguey am succès do len ma gis ci gouvernement doo le ma gis ci assemblée nationale doo le ma gis ci mairie ça c'est pas moi moi je suis avec le peuple et je resterai avec le peuple C'est rek qui m'intéresse sachez que je serai votre serviteur à vie Dina l'en servir ba keroog bu ma génnee ñaan dix millions de sénégalais yéen ñëpp ngeen génn gungee ma ci bàmmeel ñaanal ma yàlla mu xaaree ma àjjana loolu rek laa leen toppee toppewu ma loolu rek dinaa leen xeexal ba keroog bu yàlla jëlee sama bakkan bii def ko ci bàmmeel ngeen ñaanal ma yàlla c'est mon combat ce combat là mien te may ñaan sénégalais yëpp ñu génn xeex ba yàlla dimbali ñu ñu am ndam te bu ñu amee ndam yàlla dimbali ñu ñu changer réew mi incha allahu rabbi loolu rek loolu rek laaleen leen ñaan dama ñaan ngeen ñaanal ma yalla ngeen ñaanal ma yalla mu continuer ñoo force ñu continuer à ñu continuer xex ñu continuer xex ba à may ñu ndam c'est tout c'est le don de soi pour la patrie le don de soi pour la patrie le don de soi pour la patrie bien attaque le don de soi pour la patrie loolu rek la ndeysaan waa vidéo challenge yaa ngi ñëw am na benn bu ñëw ni gaawee ñëw nag noonu laa leen di kiyee ndeysaan ay waay voilà voilà vidéo challenge yaa ngi ñëw ma nga ñëw de vidéo vidéo challenge yaa ngi ñëw macha allah yéen ñëpp comme ni ma leen ko waxee rek vidéo yi bu ñëwee dinaa ko poster gars yi bu leen xool kanamu kii def vidéo bi xool leen passion bi nekk ci vidéo bi ak ni mu ko defee challenge bi rek incha allah noonu ngeen koy xoolee bu leen par parloo da ngeen di xool vidéo bi borom ni mu ko defee ak ni mu ñu ko defalee ak niñ ko jotee incha allahu rabbi te ku gagné comme ni ma leen ko waxee peuple bi moo koy décider ndax vidéo yi lay dugal té vidéo yi buma ko dugalee ki ci ëpp commentaire ki ci ëpp manam like ak commentaire ki ci ëpp vue like ak commentaire mom moy gagné ndax man nga am ay vue té amulo ay like man nga am ay like té vue yi fof man nga am ay commentaire té like yi fof donc je vais prendre ñi like vidéo bi ni ñu ëppantee noonu laa koy jëlé voilà ak ne vous en faites pas téléphone lëndëm na téléphone leer na def leen ko amul ben problème xoolal ma kii moom yow tur arab yow ci arab nga bindee euh, sa tour. ba pare nga nek fi nan khale Pastef dañoo nangam bàyyil Nek <laughs> nekkuñu ci loolu na na normal rek na vidéo yi normal incha rabbi gars encore une fois ci campagne la ñu dama leen koy wax waxaat ci campagne lañu jëm bu leen naagu bu leen naagu ci campagne lañu jëm amul naagu euh, ci biir live bi nii moment yi may recevoir vidéo yi dama koy poster en temps réel donc ku ma jox vidéo am rek xamal ne dama koy dugal si saa si après ma bind ci challenge en ba noonu bu dee challenge deux ba noonu bu dee challenge trois ba noonu bu dee challenge quatre ba noonu bu dee challenge cinq ba noonu ma dugal rek mais noonu laa koy toppee challenge un challenge deux challenge trois challenge un nii laa koy def challenge un voilà kii mooy numéro un challenge un ok léegi challenge deux challenge trois noonu laa koy toppante challenge ku gagné rek yaa moom yaa moom man du ma parparloo ku ëpp vue rek yaa moom voilà donc ki ma jot vidéo am dugal naa ko challenge numéro un di ngeen ko gis léegi noonu laa koy toppee rek ku gañe rek ma dugal la incha allahu rabbi ku gañe àdduna bi yëpp gis àdduna bi yëpp a koy gis ndax di ngeen xam ne kii moo ëppale ay j'aime voilà ku ma jot sa vidéo rek dama koy dugal jot naa bu njëkk bi dugal naa ko te noonu laay continuer au fur et mesure bu ñu jotee challenge yi rek dañ koy dugal te bëgg na gaay comme ni ma leen ko waxé on est en campagne électorale voilà ci wéru koor lañu jëm campagne wéru koor nak dina yiiw ndax musique bu bare bék yenn ciow yu bari du am mais doomu aadama yi di ngeen genn wax suñu programme da ngeen di wax sénégalais yi dégg ko voilà da ngeen di wax ça sans rien Euh, moomoo bàyyil caaxaan bàyyi leen caaxaan Sénégal dara du am dama leen di wax général Moussa Fall bis bu demoon coup d'état ci réew mi ñun ñoo koy ñuus ba gatam tàng mu dellu ginnaaw fii Sénégal dara mënu fee am voilà ngeen xam ko alo sëñ bi. waaw c'est yaa ngi ci live bi de bu yeboo nga waxaale euh, nga nga nga nga sànniwaale suñu suñu mbir mi suba wala bismillah. allah incha allah. voilà salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. di leen remercier yow mi Tounkara. Mm. par rapport ak euh, liggéey bi ngay def ay at yu bare bare bare bare ba léegi te ñuy am yaakaar ne. Mm-hmm. allah yàlla defal jàmm. Mm-hmm. Euh, eh, ngi ñaan yàlla aussi buñ ko amee aussi yàlla ñu yàlla teg loxo. dañuy bëgg ci biir réew euh, am ko te jëriñoo ko. Mm-hmm. te ñëpp ñi nga xam ne ñoo ci doon Mm-hmm. Mm-hmm. voilà di profité di wax ne euh, suba. Mm-hmm. incha allah. ñun fii États-Unis. Euh, particulièrement à New York. la ñuy tàmbali sunu campagne. maanaam amatuñu ni. Uh-huh. campagne boobu nag. Uh-huh. non seulement dañ koy defal spécialement jigéen ñi. Uh-huh. parce que demain c'est le huit mars. le huit mars dañ koy jagleel jigéen ñi. ndeysaan donc loolu dañ ciy bëgg a àndal jigéen ñi. Mhm. comme ça ñu ñëw ñu feetandoo ko parce que ñun ñëpp a bokk ñu dëgg. Mhm. Sénégal rek la ñuy wër. boobu nag moom suñu candidat lañ koy defal moom mooy Bassirou Diomaye. boobu mooy am suba 116. waa Amérique nee nañu suba 116. ci buntu Mafal la ñuy tàmbalee campagne. 14 heures. lu ngeen bëgg rek. waaw 14 heures. eh eh neel sa waa ji mu defaral ñu ndambe sa cousine bi ne ko mu indil ñu ndambe neel sa cousine bi mu indil ñu ndambe wax ko ko ah. mburu bi bu mu manqué ndambe bi bu mu manqué dañuy campagne dañuy campagne voilà eh Rama Diallo Ndeye Rama Diallo yaa ngi dégg ndambe bi bu mu manqué ndam du manqué incha allah. voilà benn problème. jërëjëf ñoo ngi ci woo ñu teewee ko ñu commencé suñu campagne tàmbali a mhm. à chaque fois nag chaque jour nag bu ñu defee ba pare après ci lañ leen di wax next step bi lan lan ak lan la ñuy def incha allah. jërëjëf. dégg nga voilà ñoo ngi lay nuyu yéen ñëpp lañ. kontaan nañu ci yow grand Malick Malick Diassène kontaan nañu. voilà kooku mooy Malick Diassène Malick Diassène c'est le numéro deux de. Mon mon euh, euh, adjoint au coordinateur Pastef Iskos. voilà Pastef Iskos. Mon luxe luxe et marque. Mon wallahi Tunkara est le plus grand constant influenceur ouais, mais luxe et marque, il y en a beaucoup y en a beaucoup y en a beaucoup Il hein. y en a beaucoup parmi nous Il y a mon frère Mola Morgan l'infatigable Il y a Kaïs Fof y a Djidji il y a Akhenaton, il y a d'autres, d'autres, d'autres. Gaï Barinanyou, il y a les femmes, les femmes influenceuses. Nyungifi, Nyom Tigresse, Nyom euh, Mamdjara, Mamdjara Liver, Mamdjara, Mamdjara Samakharit, Mamdjara, Mamdjara Liver, Sénégal Voilà, il y a, il y a, euh, Wai, Wai, Wai, Borom Il y a beaucoup d'influenceurs, il y a beaucoup d'influenceurs luxe et marque. Voilà, Barinanyou ñuy def liggéey bu jaggi des euh, dama bëgg rek sénégalais yi ce euh, combat euh, malheureusement parfois dañ koy def ni compétition c'est pas une compétition dañuy matalanté combat bi dañuy matalanté man damay matali Issa Diène Cheikh des des ñun concurrence suñu ci suñu il faut ngeen comprendre lolu on n'est pas en concurrence on est des frères ñun ñëpp ñoo ànd ci benn combat bi parfois nag xol yi yéeg nga dégg kuy wax ay waxi waxam ay affaire am voilà asalaamaaleykum sëñ siidi Fall siyaar naa la allo waaw da nga bëgg ma ubbil la ligne bi nga wax ci kaw walla ci suuf nga bëgg a wax voilà donc ñu ngi lay dégg bisimilah. parce que parce que en fait euh, maa lay remercier si liggéey booy def ah, ñëpp ah, parce que patriotes dañoo bari si àdduna bi. Uh-huh. mais Tonka am ay zone si uh-huh. département bi yoo xamante ni day tay sama xel. waaw waaw. parce que nit dañuy woo. ñu ne ñu en fait am na ay zones yoo xamante ni ñun amuñu fa présence te am na ay zones yoo xamante ni gars yi dugal nañ fa xaalis bu bari notamment au Fouta feneen. Uh-huh. il faut que nous avons <coughs> benn cellule d'information de partage d'information mhm. c'est juste pour Que mhm. ñu xam curseur bi fan lañ koy teg pour nous mën à la a mhm. parce que nous na commune communes yoo xamante à gars yi accaparé nañ ko commune département yoo xamante ni gars yi et aujourd'hui dans les plus grandes communes dans les plus grands départements on gagne voilà mais il ne faut pas nous mettre une chance. Il faut une élection à un seul tour. Uh-huh. On a, il y a une conscience collective, il y a une conscience collective. Uh-huh. Mais c'est la femme, l'un l'autre commenté sur le plan opérationnel, la femme manquée. Uh-huh. Non, il n'y aurait pas que. Mme Bédiray, Ben Har euh, Walanak, alors que yo Il faut que nous occupions le terrain. Diaspora, nous sommes maillés, nous réglons. Diaspora, avant, avant 11h du matin, c'est réglé mais le département est venu reculer au Sénégal il faut que il faut que nous régler ko. aujourd'hui on a des partenaires on a des leaders. Mm-hmm. ils ont une force au niveau national. Mm-hmm. mais au niveau local amuñu doole. Oui, mais aussi amna luma bëgg a am bëgg nga def dama bëgg comme ni ngay def ni. alerter c'est bien d'alerter mais bu leen bu def conclusion bu tirer conclusion parce qu'il y a beaucoup de choses qui, qui ont changé que tu n'es pas peut-être au courant man je peux te dire que euh, wut nañu ci département yep comme Podor Matam Bakel département yi nga yaakaar ne gars créé nañ fa ay ont njaaj yëpp fofu nañ ko on a des représentants partout maintenant à travers le Sénégal ah et un grand remerciement à notre député de la diaspora Aïcha Touré qui s'est personnellement engagé dans ce cadre pour lu xam parce que def ci on a on a recruté beaucoup beaucoup de représentants je peux te dire des centaines j'en connais quelque chose voilà voilà voilà ci ci voilà ne donne pas les ne donne pas les stratégies en haut voilà non, non, nos stratégies, voilà. Voilà. On est en train de se déployer comme des, comme des champignons sur le terrain. Voilà, très bien. Il faut que, il faut que, affaire Mouga ou uh-huh. les gens sont prêts. Voilà. Il faut, il faut qu'on ait les équipes. Il faut que merci beaucoup. Voilà, nous savons que que bu ñu le du de du et du Sonko c'est le peuple sénégalais qui gagne. alhamdulillah merci pour toucher à ce point parce qu'on veut vraiment réconcilier notre pays et que tout le monde soit sur la même page sur le même pied d'égalité voilà et surtout nous savons que djomay voilà c'est représentation c'est une représentation c'est une incarnation. jërëjëf merci. et ça c'est une bataille du peuple. c'est 1963 2024 des guerres. merci beaucoup on un système on n'est pas là pour des hommes. merci merci grand. voilà donc Malik est de retour Malik, bismillah. voilà euh, c'est juste que demain apporter quelques éclaircissements. uh par rapport ak nit ñi fi ñuy xalaatee naan département yi comme euh, Sidi moomu duggoon léegi. waaw ñoo ngi koy remercier par rapport ak éclaircissement yi. Uh-huh. mais dama bëgg ñu xam ne. Mm-hmm. on est plus une petite partie. waaw ah. mag lañ yor. Uh-huh. te ñi ko yor. Uh-huh. ñoo ñëw xalaat ci étape bu ñu romb rek am na lu ñu ci jàng. jërëjëf bu ci ay solution mm-hmm. donc fi ñu toll nii ñun liy sunu Mm-hmm. muy kenn ku nekk ci ñun mooy mooy benn patriote bu nekk mm-hmm. la nga xamante ne si moom nga war a bay bay ko si sa biir kë mm-hmm. ak sa biir koñ en attendant leneen li si des après bu ñëwee ñu mën a xam parce que ku ci nekk boo defee rek après buñ ko indee rek dafay doon dafay doon loo xam lu constant lay doon plus lay doon waaw voilà plus lay doon quoi nañu focus. Mhm. boo déggee ñu naan focus moom mooy focus leen ci li nga xam ne moom la ñu a def. Mhm. d' abord mhm. a am solo moom mooy ñu inciter dem jëli ci seen ko jaree sax ñu ñëw taxaw jël ay euh, des moyens de déplacement di gunge nit di leen apporter. loo xamante ne si wala ñu leen koy xoola seen carte fan la mën nekk ñu ñëw di dimbali leen ba ñu ko. waaw loolu en ce le plus important.

comme ñun ñun ñi nekk fi wax ku ñu mën a dimbali ñu dimbali de mais hmm. ñu nekk Sénégal lu ngeen mën a dimbali ci nit mu dem récupéré kartam ngeen mu récupéré ko lu ngeen mën a dimbali ci jouru <coughs> vote ko mu dem voté ji ñu def ko hmm. nous les représentation yi ñuy def ñun yooyu noonu sunu liggéey boobu noonu. Hmm. ñi nga xam ne ñoom ñoo sàkkoo affaire élection ñoom xam nañ li ñuy def ba pare te teg nañ seen plan ba pare. voilà nañu concentré wu sur l' essentiel. focus. tout simplement incha allah. voilà merci beaucoup voilà donc gars yi kooku mooy euh, Malick Diassène comme niñ leen ko waxee boo leen xoolee suñu frères yaa ñuy déglu les frères sur le terrain jàmbaar yi les patriotes ma leen di nuyu nag de passage yen ñëpp maa ngi leen di gis. Euh, élection bi maanaam comme liñ leen wax la rek c'est le système contre l'antisystème te dañoo bëgg pour sénégalais yi déjà ñun ñëpp ñu dajaloo ñu doon benn say ñu doon benn say. il faut ngeen xam lolu il faut ñun ñepp ñu dajalo ñu doon ben say bu ñu doon ben say euh bu len dem campagne yaakar wa wa fi keur wa ex euh, ex APR la duñ fa dugg ex APR ñom ñu bari légui Pastef la bok légui ex Pastef dafa dundat ex APR mo am ex APR nak da ngeen di dund sen keur yi ngeen feug parce que ñom bëgg nañu lu baax ex APR waxuma APR ex APR da ngeen di fëgg borom këru ex APR yi ñom ñëpp ngeen jox leen spécimen bi ñom ci seen bopp duñu wotel Macky Sall ak ñi mu àndal comprendre leen lool comprendre leen lool dama ne yeen ñepp lañuy waxal ex APR fëgg len buntu yi ngeen dugg fep fat fep lañ wax bu len am xaj ak ex taxaw Senegal ex APR kër mana len meuna dugg dugg len ngeen wax ak ñoom ngeen sensibiliser len ngeen lo len ne jomal jomay senegal yep la fi nekkal ngeen lo len ne gouvernement bu bes bi di ñew appel d'offre lay doxé manam appel à la candidature lay doxee ci liggéey du ne rek waa Pastef rek laay jël wala waa nangam rek laay jël déedéet dañuy xool ku xam-xamam màcc ñu jox ko liggéey bi xam-xamam ànd ak moom dañuy xool ku mën a jëf ñu jël ko jox ko li mu mën a def loolu la ñuy liggéey ñun Sénégal boobu la ñuy woote c'est un Sénégal uni pour tous le don de soi pour la patrie kenn ku nekk ci ñun dafay jëfal réewam du xaar réewam jëfal ko Sénégal la ñuy defaraat xam ngeen lan mooy force Chine Chine Chine mooy chinois yi ngeen di gis tey ci àdduna bi bi àdduna bi yëpp jógee ñii am or ñii am jama ñii am petrol ñii am nangam chinois yi ñoom dañoo jàngal seeni ay doom technologie jàngal leen maanaam euh, liggéeyu loxo tey boo xoolee ci Chine Chine ñoo ëpp doole ci àdduna bi te basé wuñu ko ci or nii ni nii pétrole nii rien ci liggéey lañ ko basé donc ku la ne liggéey du fay rek dafa fekk liggéeyul ndax le travail paye quand tu travailles tu récoltes ku béy day góob amul kenn kuy béy te du góob ku béy rek di nga góob mais xam nga lan ngay góob li nga béy ngay góob doo góob li nga béyul voilà doo góob loo béyul voilà jërëjëf Euh, allo sister da nga a participer. waaw dama lay dëkk bismillah. waaw dafa am nag euh, xam nga damay tuuti yi mais dafa am loo xam ne daf ma tenir à cœur dama bëgg ñu déglu waaw vas-y. parce que adresse euh, li wax ni patriote yëpp laa ko boole. Mhm. parce que démb si élection yi ñu kii bi ñu amoon fële assemblée. waaw si député yi. Mhm. dama gis beaucoup de patriotes yoo xam ne. ils sont bien suivis. Uh-huh. ñuy attaqué frontalement suñu ay député. Uh-huh. ba dem ba am na si ñoo xam ne sax dañ ne doon traité de traite. Uh-huh. loolu nag daf ma naqari gis nga. ñun ñëpp ay patriotes lañ. su ku génn nga wax d'accordoo. loolu mooy démocratie. Mhm. mais dem ba jël ay nit ay gor yow xamoo ñi lan lañ tëral. Mhm. nga mën a taxaw ouvertement di leen traité de traître loolu rafetul suñu ñun ñun ay patriotes yi nga xam ne ñun ñoo bëgg indi le changement. Mhm. gis nga soo bëggee de changement da ngay def loo xam ne comme gaaw Macky Sall yi defuñu ko sooy xool benn bokk yaakaar lu tax ñëpp wàccu leen. genre doxalin yii la di sosal ay nit di tuumal ay nit loolu waruñu ko gis si ñun. ñun dañu war a nekk ay exemple man nañ hmm. discuter ñëpp si dans le respect. Hmm. comprendre nga man bi ma gisee loolu démb dama tiit. Hmm. te gis nga bu ñu continuer loolu bàyyi ñu ko ñun ñooy raw ma euh, waa kër Macky Sall. ñun nag ñoo bëgg changement il faut ñu changer si jikko yi changer si lépp. la démocratie lañ wax mais ne day fay respect. Mhm. ñu am des discussion entre patriotes nous ñëpp pas d'accord. Mhm. comprendre mais dem ba fekk ay di traité de après nous, nous, nous, ñu wax pour nous, nous, nous, may sax nous, ñi nous, wax nous, am pour mhm. nous, avons da ngeen nous, nous, nous, nous, nous, nous, xam nous, ku nous, nous, wax génn wax nous, Mhm. bien que ñoom gis nga li ñuy nekk parti yëpp est-ce que di nga si gis benn waa PUR génne ouvertement di attaqué ñoom ku nekk ci seen parti doo ko gis mhm. dañu am benn discipline de parti bi loolu il faut mu nekkaat si suñu ay base ku nekk génn di wax da ku nekk dàq euh, di dàq de seen maa la gën a mën a wax mhm. mën nga wax loolu loo bëgg d'accord ñu ngi am ay suspicion mais ku nekk génn alerte na d'accord ñu mais pourquoi di ah, di di di traiter ay góor ay père de famille te ñoom war nañ xam ne fu ñuy sosalee ay nit ay patriotes war ñu fa nekk parce que suñu leader muy Ousmane Sonko sosal moo tax ñu dugal ko si kaso bi ba ñëpp xeex si ba ay bakken rot si. loolu mooy dëgg dafa ma naqari démb dafa nañ bàyyi wax yu ñaaw yi. Mhm. nañ ko bàyyi. waaw nañ discuter dans la démocratie mais di saaga ay góor di xas ay góor gis nga après Birame Souleye bi mu génn di wax dañ koy xool xam ne affaire bi affecté na ko. te ñooñu ñu def liggéey bu am solo.

tu peux vouloir aider et tu blesses man nga bëgg dimbali mais da ngay gaañ en même temps donc bàyyi leen loolu xel euh, parce que bu lolu man mën gañanté. Man mën gañanté té duñ ko tay. parce que man mi limuy wax nonu remarqué nako. j'ai remarqué que les députés ont été attaqués comme si dañu voté won oui sur la loi Yen ay nit ngeen yóbbu assemblée nationale ngeen war leen wóolu bàyyi leen ñu def seen liggéey ngeen leen di jéebaane loolu la ñuy bañ ci élection yi tamit élection yi dañu am ay njiit nañu respecté suñu njiit yi yàlla def na El Malick Ndiaye moo yor communication Pastef nañ ko respecté Amadou Ba moom moo nekk mandataire Bira euh, euh, euh, Bassirou Diomaye fay nañ ko respecté biram Souleye Diop actuellement c'est le numéro deux ou trois du Pastef respectons Abbas Fall suñu kilifa la nañ ko respecter. Aïcha Touré moy suñu député de la diaspora nañ leen respecté donc il faut respecter les gens nañu respectons ñi nga xam ñom ñoo fi ñoo ñu fi comme ça lolu day yombal combat bi il faut ngeen xam lolu lolu day yombal combat bi mais si on ne respecte pas les gens qui sont là pour nous vraiment day xaw a doy war donc gars beneen beneen challenge ñëw na dama koy dugalaale en même temps comme ni ma leen ko waxee rek damay dugal challenge yi dès que ma jot vidéo yi donc jot naa vidéo un dugal naa ko dama ci bind ku nekk bu ma jotee sa numéro bi rek dama ciy bind challenge un challenge deux challenge trois challenge quatre comme ça ku gagné damay na challenge un moo gagné wala challenge deux wala challenge trois day fekk yor nañu sa numéro ñu daal di la wave sa cinq cent mille voilà wala bu bu dee un million la ñu décider wala lu ñu décider rek dinañ la ko wéev ñu wone preuve bi fii ne yónnee nañ la sa xaalis voilà te loolu nag dinañ la yónnee non seulement loolu waaye dinañ la jox aussi beneen kado parce que dañu bëgg vraiment ñuy ñu gën a góorgóorlu ci campagne bi loolu la ñu bëgg dañu bëgg ñëpp góorgóorlu ci campagne bi ñëpp jàpp ci voilà donc maa ngi dugal ni challenge deux comme ni ma leen ko promettre dougal challenge 1 mangi dougal challenge 2 hein challenge 2 ci numéro bi aussi dama ci note challenge 2 donc ku yonne cette vidéo rek inshallah dañuy le challenge donc euh, challenge 2 challenge 1 parce que campagne on est en challenge hein mode challenge donc les 15 voilà peut-être me pousse qu'au 20 ouais les 15 premières rek lay jël dougal ko donc mënuma dugal mille xam nga mënuma dugal mille vidéo waaye nag def leen yónnee leen rek je vais le les quinze premiers ñi ci sama loxo daj rek ñooñu laay jël dugal pour vraiment ngeen am chance gagner voilà dugal naa challenge deux bi comme ni ma dugalee woon challenge un donc ku mën a dugal rek ku mën a indi sa rek indi ko ku mën ku indi sa rek incha allahu rabbi dinañ ko dugal ku indi sa challenge rek dinañ ko dugal waaye ma leen di ñaan Encore une fois, on est en campagne électorale. Ousmane Sonko waxoon nañu ko waxtu bu ñu jàppoon combat bi ñu ngi ci waxtu bi gën sérieux ci combat bi dama bëgg ñu dem déglu président Ousmane Sonko gis nga mbir boko ko jàppee boo ñëwee ba ci càppaandaw ga fa nga war a gën a góorgóorlu xaaral ma vidéo Ousmane Sonko bi. boo demee ba gën a jege objectif bi foofu la mbir mi di niroog lu gën a métti fekk boo xuusaatee tuuti rek yegg yàlla mooy doxalee mbiram noonu waaye boo découragé bàyyi sa loxo rek fekk yow presque yeggoon nga lépp lu ngeen doon def benn nañ ko def juróom tey ndax Sénégal jar na ko te bu ñu ratee rendez-vous bii dinañu toogaat di ko xaar lu yàgg yàgg yàgg yàgg ndax Macky Sall woon na leen lan mooy na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 Yenangi deg le président Ousmane Sonko dañu nek ci campagne électorale on est au moment le plus décisif de notre combat ku bàyyeeku rek ne wala alhamdulillah yegna naa tu des erreurs catastrophiques demb ba légui nak maa ngi jot ay message de félicitations. ay nit di ma félicité grand vraiment félicitations. vraiment jërëjëf grand content nañu vraiment gagné nañu félicitations. Did encouragez-la on n'a qu'à s'encourager on est proche mais on est loin de gagner on est proche mais on est loin de gagner on est proche mais on est loin de gagner You're supposed to be playing a game or acting stupid. Which one is it? And Yatu are standing there and watching them be violent. We're not doing that. Voilà. Comme ni ma leen ko waxee mbir day toll foo xam ne daanaka yegg nga ci cappaandaw ga daanaka yegg nga ci cappaandaw ga daanaka daanaka we are this close but we not there yet dafa am ndeysaan boo xoolee Amérique wala yeneen réew yi da ngay gis ay film yi ñuy bind yu tudd are we there yet donc laaj leen seen boobu seen seen tur seen bopp loolu est-ce qu'on est là on ne pas encore la on est presque la mais on n'est pas encore la on est presque là qui est en faveur c'est nous pas de faux pas pas de faux nañu partager vidéo nañu dagg vidéo yi dugal ko nit ñi dégg ko nañu challenge Sonko yaay jomaay nañu dem ci kër yi di fëgg di wax ak doomu aadama yi nañu sensibiliser nañu balayer terrain bi ba mu set nañu ratisser terrain bi ba mu set te ñu xeex combat bi lii du combat wu caaxaan C'est pas un combat de blague. Dédette. Du combat ou tchahan. Dédette. Ça, c'est pas un combat de blague. Du combat ou tchahan. Ça, c'est un vrai combat. Combat les leen taxaw di combat bi nous Boguma, bëgguma ñu fàtte suñu bop. bëgguma loolu de bëgguma loolu nous ñu sàggan nous ñu fàtte suñu bopp on est dans un combat très sérieux non non non je ne t'ai pas oublié non non non non I didn't forget you absolutely not fàttewuma la bëgguma tudd tur bi je suis en direct mais non absolument pas fàttewuma la non non non voilà, je, te, je connais. Concernant les représentants du bureau de... Voilà. voilà donc euh, comme niñ l'avons ko si rek suñu kàngam yi nga xam bureau Eh, ñom ñoo nek ci kaw ma man ci ndaysan gëna ragné euh suñu Fatima Mbeng national Fatima Mbeng national ba nga xamné ne bi yëpp xamé nañ njàmbaaram xamé ko ah, manager bu extraordinaire la dame ce qu'elle fait yow da ngay tok nga laaj sa bop nga ne ki est-ce que du machine est-ce que du robot koku moy Fatima Mbeng ñu ngi def liggéey bu extraordinaire dama ne focus l'aide. j'appelle tous les Sénégalais à se concentrer et à être focus sur l'essentiel et Inch'Allah, on est bientôt bientôt à l'arrivée on est bientôt à la ligne finale voilà encore une fois comme nous l'avons dit, nous avons ñu ngi pour challenge Inch'Allah, euh, le président de la république mon décret voilà Macky Sall décret euh, fixant la période de la campagne électorale à la présidentielle euh, du 26 décret. Voilà, article déposé, considérant campagne débute le samedi 9 mars. la campagne bi à 0. à 0h dans dimanche euh, samedi 0h, 0h samedi 9 mars la Macky Sall la campagne bi di samedi 9 mars à 0 h décret ba New York, ñu yor len ko agrandiral voilà décret bi mi samedi 9 mars bo len ko samedi 9 mars la campagne bi di à 0h. terminée le vendredi 22 mars après minuit à minuit manam ñu noppaleku vendredi bo nous ba minuit nga noppaleku samedi bi yëpp ñu noppaleku ba minuit dimanche ñu xey dem voter donc le ministre de l'intérieur le ministre des forces armées et le garde des sceaux ministre de la justice et le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur le ministre des finances donc euh, le président de la Commission électorale nationale autonome et le président du Conseil national de la République de l'audiovisuel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du décret qui sera publié au jour officiel. Donc, samedi, ginnaaw bu minuit jotee ci la campagne bi di tàmbali zéro heure ci samedi maanaam euh, vendredi ajjuma boo demee ba mu jeex samdi bi boo demee ba mu jeex ba minuit ci samedi ci lay tàmbali daanaka dimanche ngay tàmbali kon campagne donc loolu defe naa ñun ñëpp ñoo ko déggandoo te euh, décret bi génn na décret bi tey la le 7 mars moom la ko Macky Sall bind mi ngi nii décret bi donc campagne bi c'est officiel ñun nak suñu campagne Amérique suba lañuy tambali ñun inshallah rabb ñun suba lañuy tambali donc wa Atlanta bo len ma invité dina ñew setsi len non bo len ma invité wul sax dina len setsi donc gaay bind len ma rek les responsables là-bas à Atlanta vous pouvez m'envoyer les informations euh, aussi euh, dina dem Kentucky dem setsi suñu gaay yi aussi Kentucky we on the way coming bu sobe yalla Euh, ak ay euh, xam naa ay Ohio yooyu incha allah Columbus ak ay Cincinnati buñ ko manee bu soobee yàlla yéen ñëpp dinañu jaar seet si donc man diaspora bi moom ce à ce qui nous incha allah how can I send you the challenge uh, you can send it on this number Jatu uh, the number is right there on the bottom mu ne how can I send you the challenge is right there sama numéro bi mi ngi noonu is zero zero 347 514 2470 loolu mooy numéro challenge bi donc képp ku yónnee sa vidéo rek dinaa ko dugal and then we gonna see the likes ku ëppale like rek incha allahu rabbi yow yaay gagné challenge bi voilà donc gars yi nañu préparé wu pour campagne bu extraordinaire campagne bu exceptionnelle campagne bu masta am ci histoire u Sénégal campagne bu jaggi dayo nañ pare ce qui est important mooy nañu campagne te nañu campagne avec force inshallah allahu campagne bi nag Fait pour fépp fu may dem dinaa yóbbaale bracelet patriotes les bracelets électroniques les les bracelets normal yor ko ñaar Sonko mooy Jomaay Sonko président yep yornako, naa ko incha rabbi fépp fu ñuy dem campagne rek dinañ ko te of course nous faté Washington DC ci sama mbokk une tamit dinañ fa dem campagne bu soobee yalla donc dinañu campagne fep fuñu man ci suñu territoire national ak international ba yalla may ñu ndam ndaysan au soir du 24 mars 2024 on va élire notre président Bassirou Diomaye Faye au premier tour waa salaamualeykum wa rahmatullah peace